ma sa toog saytaane daw ba sori koom ma sa jëm saytaane dem feneen ba koom saxal di jaamu yàlla ak liggéey fu ma sa nekk loolu mooy mbiram yi di bay di jox yàlla bu wér fu mu tollum sëriñ Saaliw Mbakeem masula bay mukk di ay kollum lu ma sa bay jox na ko Cheikh Bamba bu wér jox gu rafet gu àndul ak waxati far aouzu billahi min asheytaani rajim <clears throat> bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk <clears throat> yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñaanalaat eh, sëriñ Tuubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye waat ci ñaan jàmbaari lislaam ji fi nekkoon di sëriñ Tuubaa cheikh saalihu mbake ñu ñaan ngërëmul yàlla di wàcc ci moom li fekk doomu aadama nga dox ci kaw suuf di siyaare ak a ñaanal jëwriñam ji mu fi bàyyi ak rakkam yi topp ci ginnaawam mu di sëriñ Cheikh mu sëriñ Saalihu ak mbooleem rakkam yëpp yal na leen yàlla may fan wu gudd ànd ko wér ba yéene jin am ci mottali ko ci yéeney sëriñ Saalihu suñ borom kàttan leen bañ a àggale ko te ñu ànd ko eh, mboolem murit yëpp <clears throat> mbokk yi ñu amaat mbégte ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit eh, ngeen di ko am alxames ju jot bu eh, vingt heures tegalee fanweeri minit ci seen télévision Lamfal TV mbokk yi tey seen émission ëttu murit ñu ngi fii ci ëttub sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbacké na yàlla dolli ay ngërëmam <clears throat> fas yéene seq ak sunuy bokki taalibe di ñoo xam ne ci biir daaray sëriñ Saalihu la ñu génne ngir nag ànd ak bokk yi ci fàttaliku feeñ gi nga xam ne sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu feeñ na ko jamono ci fukki fan ak ñeent ci weeru diggiw tabaski <clears throat> ca feeña ko ca njaareem eh, ci diggante yaari waajuram yu sell yooyu te borom xam-xam yi di wax ne fàttaliku nitu yàlla day wàcce yërmande yàlla ci kaw suuf te loolu bokk na ci ñu fàttaliku ay jikkoom ñu mën caa roye ba mën a am ngërëmul yàlla wala yërmande yàlla kon noo ngi jaar mbooleem ku mas a jaar ci daara yi kër Serigne Saliou yëpp di saa siyaar mbooleem taalibey Serigne Saliou yi ak fu ñu mën a ne ak soppey Serigne Saliou yi bàyyiwun ci kenn e, mbokk yi tey ñu fas yéene waxtaane ñetti tomb ci Serigne Saliou benn tomb bu njëkk bi moo di xam-xamub Serigne Saliou ak xereñte gi nga xam ne am na ko ci mooy li yàlla dogal sëriñ saaliwu am ko ci xam-xam ci xeeti xam-xam yëpp nag muy xam-xamu diine xam-xamu adduna xam-xamu leneen ak leneen sëriñ Saliou am ca xam-xam ba noppi am ci ak xerañte euh, tombub ñaareel bi ñu bëgg ko jëm ci euh, xelum sëriñ Saliou mu rafet maanaam xelam nga xam ne rek bu dutoon xam-xam bi xel mi war naa mën a yor adduna bi ko ñetteel moo di man gi nga xam ne sëriñ Saliou mën na ko nit mën na ko nitam yooyu ñett ci lañ fas yéenee ñëw ak tomb bi incha allahu rabbi ànd ci nag ak sëriñ Salihu Baal ci sama ndijoor e, sëriñ Salihu Diouf ci sama dend ak moom e, sëriñ Cheikh Gaye nekk ci sama loxol càmmooñ sëriñ Cheikh Diouf e, nekk ci wetam moom itam kon sëriñ Salihu dama lay bàyyi ak micro bi nga nuyoo ak bokki téléspectateurs yi ànd ak ñun ci laaj bi benn yoon nga xam ne ku nu jox rek booy wax dangay nuyoo waale ci indil ñu ci juróomi minute rek tënkal ñu ci boo ñu ci mënoon tënkal eh, xam-xamub sëriñ Saliou ni nga ko seetloo ak xerañte gi nga xam ne suñu borom defal na ko ci eh, wàllu xam-xam. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di jiital ci e, nuyoo bi sëriñ Fallou Galass Sylla mi e, nga xamante ne moo e, jiite jotaay bi di siyaara bu baax sëriñ Mountakha di ñaan suñu boroom mu fiq aw fanam mm, ba mottali mbooleem yéene yi mu yéene liggéeyal lislaam rawatina yoonu murit di siyaara bu baax sëriñ Seex Mbakke moom sëriñ Seex Saalihu Mbakke di ko suñu borom dëgëral ko yàggal ko fi ba naal yi mu yéene liggéeyal way juróom wu sell wa nga xam ne léppi diine taxawe na ko mm, yàlla mottalil ko ko te sàmm ñu sàmmal ñu mbooleem suñu kilifay diine sàmm mbooleem donga yi te sàmmal ñu suñu taalube mu mel ne sëriñ fàllu Galas daanaka damay dugg rek directement ci tomb bi euh, da wax tomb bu am solo muy xam-xam dafa mel ne ñett yi nga wax yëpp dañoo duggante xam naa ne xikma bi la suñu borom defal mooy dañuy noonu ñu ràññee tartib mantiqi la maanaam bu bu tàmbali bu nekk mooy woo ba ca des ba ca des woo morom jamu mu soog daje ci xam-xam ci la am xel di selle ci xel mu sell ci la ñuy mane nit kon bu ñuy wax ne Seex Saalix ñu bëgg a natt dayob xam-xamam loolu moom lortu nañu ca waaye danañ mën a xiyaas luy fés luy fésal ne xam xam kenn xamul gàpp ba ndax xam-xam li njëlbeenug li koy màndargaal mooy ak ragal yàlla inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun nee na fànni xam-xam yëpp boo ko jàngoon ba mu jeex te ak ragal yàlla loolu ko xam-xam nekk fa loolu tuddul xam-xam kon ragal yàlla gi nekkoon ci moom nga xamante ne ñëpp xam nañ ne bu jàkkaarloo ak yàlla yërmande yi mu am ci ñoom day fees ba ay day daal di tuur ay xéewal nga xam ne waxtu wu ne bu dee ci jaamu yàlla yi la nga koy cay fekk la mu cay toggal da ragal ne lii wëree su ko mën a booleeg benn yëngatub àddina te teewul mbooleem li muy war a saytu ci mission bu àddinaam lépp dara tardé wut loolu xam-xam moo koy laal loolu xam moo koy laal mu mel ne bokk na ci it ngir nga mën a màndargaal xam-xamam mooy mission bu toll ne wutu sëriñ Touba Zahir ak Batin dana ko def te Serigne Touba lépp yoon wi mu lal ko ci xam lii firnde ji rek mooy karaamati xattu yet yi taraangam yépp ci bindum loxoom ci la ko làq kon loolu mooy firnde ne ci xam-xam la lalu kon ku ko bëgg wuutu taxawee zahir ak baatin ci mbiram faawu xam-xam bu mat sëkk moo koy moo koy taaw loolu it day firndeelaat xam-xamam bokk na ci liy firndeelaatin nga ne Seex Saalix boroom xam-xam la mooy xam ba xam jeex xam doomu aadama moo ci gën a jafe koo xam ne ki gëmul da koy seet si ki gëmul yàlla day ñëw fi moom mu jox ko daraja ba mu defee ne moom daraja ji sax waru ci woon a yegg te du te du safaane dara ci diineem te du safaane dara ci diineem moom naka noonu ki bokkut ak moom tariixa day ñëw mu taral ko ba mu mu teral ko ba mu defee ne teraanga ji waru ko woon am loolu xam-xam mooy natt kaaka bu nekk maanaam lenn lu nekk nga teg ko palaasam ndax xam-xam baat bi bu ko borom xam-xam yi di définir dañuy wax ni mooy lenn lu ne nga xam nam nam tëdde loolu mooy xam-xam xam-xam buñ koy koy tënk dañ naan mooy mbir mi nga xam nam tëdde loolu nga cay xam-xam lépp loo xam ne xam nga nam war a doxee rek loolu am nga ci xam-xam kon Cheikh Saleh bokk na ci liy màndargaal ne ku amoon xam-xam la mooy ni mu doon jëflanteeg mbooleem xeetu nit bu mu mën a doon boo yegsee ci moom xam na na muy dundeek yow te loolu la ñuy tuddee almu nafs bokk na ci xam-xam yi boo demoon tey ci ñitti àddina yi sax moom la ñuy gën a valeuréel boo dikkee ci Cheikh Saliou da ngay fekk mu fees ko dell ba noppi saf sàpp yàlla te lool loolu yombul ñaare xam xam adduna bi ni muy doxee ba noppi saf sàpp yàlla loolu yombul loolu damay wax ne ci Serigne Touba rek la ko yàlla def ndax mu tasaw fi njëkk yi li leen li bokk na ci li leen xaw a gaare mooy dañoo dañoo daw wuti alaxiray kese bàyyi àddina ji complètement moo tax bi ñu fi jógee faay yi am ci seen gannaaw kenn mënu koo lijjanti parce que lu tax àdduna moom day dafay des di doon àddina di dox ci ni muy doxee waaye bu ñu xoolee Serigne Touba li wutalee euh, mbiram ak yo ak ak mbiri mutasawifoon yooyu mooy lu toll ne ni muy taxawee àddina noonu lay taxawee àllaaxira gi te lislaam lool la soxla mu jaddidul islam bu mu mën a doon ngeen nga bañ a esek sa àdduna da nga koy jekku ni ngay jekkoo sa àllaaxira toujours damay wax ne euh, Cheikh Salihu li ko may mu mën a jàll mooy xam li muy def mu leer ci moom dafa dafa leer nañ ci moom Cheikh Salih li mu doon def dafa leer nañ ci moom waaw lambatuwu ko xam googu moo tax ñitu nguur mën mënta ñëw ba yàqal ko dana ñëw jaxasoog moom lim soxla ci ndimbal mën naa am ndimbal te du lor yoon wi ba tey du lor diineem du loru njabootam te loolu yombul naka noonu it xàmmee woon na xam gu wër moo waraloon mu xam jox-jox am na koo xam ne bu ko joxee mu jël waaye am na koo xam ne bu ko joxee mu gàntu ndax jox bu ne am na lu nekk ci gannaawam jox bu ne am na nekk ci gannaawam jeexiti jox tax na sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan tahaddu tahabbu bu ngeen dee joxlante mbëggeel day am képp ku lay jox te jox gim lay jox di joxub xol benn rek am nga wéy di ko bëgg yow wala moom mu wéy di la bëgg fi ne boo taalibe bi joxee addiya ñaaree am yokk mbëggeel ci sëriñam wala mu yokk cofeel gi jóge ci moom ñëw ci sëriñam nuuraaniye bi dox seen diggante loolu la Seex Saalihu xam gum xamoon loolu xam-xam bu mat moo tax mu xamoon lan la war a jël ak lan la war a gànt allah mu bokk ci it lii firndeel ne Seex Saalih boroom xam-xam la woon mooy xam gum xam li ñuy tuddee euh, as sirr ndax li lay xamal ne xam na sirr doomu aadama yi kenn ku nekk koo xamante ne lu ëpp fukki junniy donga yaa ngi leen di saytu ñoom ñëpp bàyyi seeni wayjur ak nit ni mu wuutee ñi xam lan mooy raraisul insaan maanaam lan mooy yëg-yëgu doomu aadama nga mën a fexe ba kenn ku ci nekk nga wëlbati am xelam ci sa bopp te jëfandikoo ay saafara jëfandikoo ab téere te buñ doxee tuuti kooka gënal la maanaam boo te buñ tegoon yaayam teg baayam sa jëmm ji gënal ko loolu Seex Saaliw la maanaam mm-hmm. keneen ku mën a doon loo ko mën a defal ndax lu tax mooy la muy def ci yow ruuxaaniya la ruuxaaniya la keneen ku mën a doon mën na laa béggale lu aju ci wàllu yaram mën na laa defal ay taraanga waaye boo demee ba gis say wayjur dellu ca ndax mbirum ruuxaaniya la mais Seex Saalix da dem ci ruux gi liggéey ca loo xamante ne boo demoon ba gis sa wayjur da nga xam ne lii sa wayjur mënu ko ci yow bànneex bi ngay yëg sa wayjur mënu koo def ci yow nga xam ne day dem ba sëriñ bi lay gënal say wayjur boo demee ci makkaanam yeet noona du ma ne la sa la la say wayjur daan jox ci ñam moom la lay jox waaye dafay def ci yow lu gënu ñam ba bérébam yow mooy gën sa béréb bi mooy gën ci yow sa béréb bi wayjur te loola yëpp nag ci ak xam leer ci la ko teg mm-hmm. yii di euh, xam-xamu waaxir mm-hmm. yii di xam yoo xam ne suñu borom moo ko ko jagaleel mm-hmm. kon matale woon na ci côté boobu yoo ci jeexale ci sabab buy tax ñu xam ne Seex Saalix boroom xam-xam la woon mooy li ñuy tuddee wàllu agronomie wàllu mbay ku xam na ne ci àdduna bépp dañ koo jagale benn xeetu xam mu doon benn euh, filière bu ñuy topp di te ñi koy suivre di ci saytu ci àdduna bépp la rëy rëy rëy boo doon wàññi àdduna ñi fi gën a xereñ ci wàllu mbay boo nee benn da nga naan ñaar ci Cheikh kon loolu wéyefut bi ci des ñu xool ci côté mbay adduna bépp niñ jubloo ci mbay ci façon bi ñuy bayee nee nañ dañuy dañuy dañuy moderniser mmh. loolu lañ ko tuddee mmh. Cheikh Saliou ba léegi mu ngi wan ne yàlla mi moom suuf si bàyyi na ci jeexit yu toll ne manees na cee bay te doo jëfandikoo benn jumtukaay yi modernité yi ñuy tudde ay chimique ak yooyu te du tee ngay am euh, maanaam rendement bu am solo loolu loolu loolu damaa defee ne bu ñu xoolee euh, ñii ñiy bay ci adduna bi ñëpp ñi ngi jëfandikoo ay jumtukaay yoo xamante ne ñi ngi am rendement ga mais ñi ngi yàq suuf Cheikh Saliou nag moom dana ca dana bay ci suuf si ba noppi te suuf si du dee du yàqu ngir lan ngir xam gum ko xam te loolu xam-xam koy laal macha allah euh, bi ci des nga nga nga jàngaati ci wàllu xam bokk na ci xam mooy méthode tey dama wax ne ñëpp ñuy gëstu ci wàllu yar tey wàllu éducation bis bu set ñu ngi def ay lël di làqu ci ay bërëb ngir jéem a tabax nit te ba léegi gis nañ ñun ñëpp xam nañ ne éducateurs yëpp échec nañ waaye sëf Seex Saalihu Mbàkke ndax lu tax mooy dana yar nit ki yar boo xamante ne ndax li gën a li gën a yéeme ci xam-xam kiy yar ki xam yar ak kiy yar bokkut ab yarkat ak man a yar dañoo bokkut gaa yu bari nag ñii ñu formé ñëpp bañ formé leen ba teg ay yarkat lañ waaye est-ce nañuy yare noonu la est que mën nañoo yar mën nañoo yar Seex mhm. Saalix dafa mën a yar ndax ni mu mën a yare mooy ab dongaam moom nga yóbbu ca biir ñu gën a addunaa mhm. ña gën a gis yëg seen bopp mm-hmm. ña gën a jàpp ne ñoom la mu dugg ci seen biir mën a adapté wu du complexe ci ñoom muy benn mm-hmm. bu ñaareel bi ñoom la ñuy réyal du rëy fi moom li mm-hmm. fekk da koo natt ci kaaka yam ko war a natt ba xam lu rëy la wala lu rëyut ndax bari waa na tey ki lay complexé li mu lay def danaan la day fexe ba jël lu rëyut rëyal loolu rëyal loolu ko ba nga rëyal ko te fekk dara newu fa dëgg la te Serigne Touba daf ñu waxoon ne bu leen fekk saa waramin boroomu neew yi fa tas man taxu ngeen di ko duuflu fekk lu neew ba ne fodd ñu war caa wut saafara di ko duuflu te bu ñu xoolee moo yàqu adduna bi tey bari na lu bëri bëri lu ñuy lu ñuy rëyal mhm. fekk na aw neewala dëgg la bari ñoo xam ne aw neewala nag nga soobu ca Cheikh Saliou nag fexe na ba kim yar day xàmmee lu neew wi ak lu duuf ak lu duuf jërëjëf tabarakallah jërëjëf macha allah sëriñ Salihu yaakaar naa ne ubbi nga bunt bi ci eh, xam xamuk sëriñ Salihu ak xereñam ci xam-xam ndax bokk na mën ngaa xam kese te doo ci am xereñte ba mën caa jëriñ sa bopp baa nga jëriñ ci keneen sëriñ Salihu nag xam-xamam da ko boole xam ko ba noppi am xereñte lam ca bëgg def mu mën ko caa def. loolu bokk na ci li ngay junj mooy bu demee ci wàllu mbay. am na ci xam-xam waaye am na xereñte ci wàllu mbéy ndax bokkoon na dégg naa ci kuy kuy kuy misaal mu di sëriñ Amsatu mu sëriñ Abdou laat maa ngi koy ziar baax di sëriñ sa siyaare sëriñ Saliou magam daana wax na sëriñ bi aw lew boo ko ko waxee bu la boo ko waxee yaatuwaay leew ba def na loolu ku ci def nangam mi bëri goy kemb dana ko war su dana ko war a fees te nee na boo ko ca defee ca jiyee ko ni mu la wax nee na la boo ko dee jiyee disque 30 wala bopp 24 boo ko jiyee 30 dana ko war a fees nee na boo demee ba juumee ko ab 24 boo ëppee mooy la xanaa da ngaa soppi euh, disque ba ko doon jiyee waaye boo ko ci yemoon ci lay yem loolu xerañte ci wàllu xam-xam ci li ngay def lay doon kon yaakaar naa ne euh, sëñ Cheikh dégg nga fi sëñ Saliou daaneele ci xamuk sëriñ Saliou euh, ak xerañteg xam-xamam te xam-xam nag dañu wax ne ci fànn yu bëree bëri la bokk am na ko waxoon ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma doon nañ ko wax naan ko xam-xam xaw ma bokku ci sëñ sa sëñ seex na leen ci xaw ma la tàmbalee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 di tàmbalee nuyoo boobu na ci kilifa gu mag gi eh, ki wuutu sëriñ bi ci njaboot bi di nuyu suñ kilifa bopp gi di Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa sëriñ Saliou di ko ñaar ñaanal sama borom dolli ko tawfiq ak sutura ak mboolem ku mbokkal sëriñ Saliou mboolem ku mbokkal lislaam xam naa sëriñ saali bal eh, baal xawoon naa mën a jàll rek benn yoon ndax eh, li muy wax solo si jéggi na dayo Euh, waaye kon fi may tàmbalee mooy nañ ñëpp jéggal te xam ni noonu bu ñuy wax Sëñ Saaliwu ci xelam wala ci xam-xamam fi ñu toll ci moom maanaam nun fi ñu toll la ñuy waxee ci moom waaye dool ni suñu waxee ba sottal nag dan naan nii nu wax ni la toll déedéet nun dañoo wax fañ toll waaye moom fam ne mën naa wuteeg loola xam nga fi ñu dool ni mën na wax ba daaneel Sëñ Saaliwu baal ñëw yokk ci loo xam da nga da nga gis ni li ma waxoon dolli na ci ki doon wax ci dolli na ko ci sifa dolli na ko ci qadr kon daal mbir la moo xam ne ñoo ngi jégalu ñépp fun ca àgg it wala fun ca yemit it nun ñoo yem foofa waaye du moom foofa la yem loolu daal maa ngi koy tàmbalee ci jégalu ko ñëpp xam naa nag ni ma wax rek sëñ Saliou moom moo naa wéy waaye xam-xamu sëñ Saliou moom nun xam nañ ci tuuti rek ci lu nana moom de mën nañoo tegtaloo ci nangam ci xam-xamam masalan xam-xamam mën nañ koo tegtaloo ci benn da ko waxtaane dafa waxtaan ci xam-xam wala ab laaj dafa ñëw bu aju ci wet googa mu tontu ca wala sax mu tudd bayit wala xasida goo xam ne dafa raara raar ba daanaka déje maanaam dox ba daje ku ko xam sax ñaari ñaari léeg-léeg na jafe kon mën nañoo tegtaloo ci xam ci waxtaanee ci xam-xam wala euh, ñu laaj ko buy tontu wala mu tudd bayit walla qasida goo xam ni tumuranke day jéggi dayo bu doone yett yooyu nag ma jël benn bi bu njëkk bi mooy ci waxtaanee xam-xam walla ma jiital sax ci ñu laaj ko ci xam-xam am na sun kenn ci magi daara yi eh, su ma jumee nag na ma jégal waaye defe naa sëriñ Saalihu jiite la mu nañ ji waxtaan ba wax ma fekk booba dañu ma ñun de sunu tool yee bi ñuy badli mbadli bi muy jeex dafa dajanteeg màggal gi te amuñu waajtaayu daal di mën a fat ngooñ mi fi barab moo tax ñun de am na jàkka ju fa ne joo xam ne xam naa sax tabax nañ ko ba mu waaye fa def ngooñ ñuy waxtaan ci loolu nag mu ne man sax day am na benn bis ñu andi jiw wi ci ñu ci tool yi biñ defee ci néeg yi nga xam ne moom du nit du néeg yoo xam dañ koo dëkkee ñu ci defee lenn ci jiw mu des ñu jël ci aslaf denc ko ci jàkka ji nee na ma ñëw nag ci sëñ bi xam naa di wax ba junju loola xam nga kon am masala daal dinay taxaw ci maanaam ci wetu wetu xam-xam nee na mu ne ma waaye bi ci tontoo li ajuwaat ci tontu li ci lu xóot dafa bari ndax nee na dani ma sallaahu day nit sax day sañ naa fanaan ci jàkk te bu guddee bu amee aajo sañ na ko faa def bu xëyee day lenn képp ko ca war mooy mu jëlee fa loola waaye fexe sax ba xet ga jóge fa sax waru ko nee na nee na nee na loolu la ko wax léegi nag li tax mu wax la xóotaayu loolu sobe nga dindi ko ba jëmm ji nekkatu fi ak xet gi ak cafka gi léeg-léeg day am yoon yun la ciy jaarale xam nga boo demee ci Cheikh Xalil mi nga wax ne laa law nin wa riixin asura sa mbubb am na sobe fóot nga fóot waaye saa yoo fóonee mu xeeñ ko saa yoo xoolee xam ne sobe sàngam la taxoon waxuñ nag boo musee mu saf la waaye daal boo xoolee ak boo fóonee xam ko ñu ni kon baal nañ la loolu ndax def nga li nga man jàppal fee mu ni kon liñ ko sant mooy na fi jëmm ji jóge waaye sën duñ ko sax na fi xet gi jóge bu ko defee yow li ngay daal di génn eh, yow li ngay daal di ko foofu mooy da naan kon sëñ bi dafa nuróole doxandéem ci jàkka ak jiwu ci jàkka te moo ne jiwu ci jàkka kon neel alal ci jàkka neel kon dafa nuróole yaar yoo ci jàkka dëgg la sax jàkka bu ne ci àll bi lañ jubla wax waaye dañoo wax ne jàkkay taax mayuñ ko fa fanaan ngir ki fi bëgg a fanaan mën naa dem hôtel lool nag teewul fuqaha yi moom war nañoo xoolaat masala boobu ndax nit mën naa dugg ci dëkkub taax moo am hôtel te mënu faa dem ngir hôtel moom doo ñëw ni salaamaaleykum ñu ne bisimilah nga ah, mën na jaam waaye kon moom nuróole na nit ki ci biir jàkka ak jiw ci biir jàkka waaye nag xiyaas gi mu xiyaas lii ca lale léegi loolu soo ko waroon jàngat yi ngi ci fekk day bari bokk na ca lislaam moom bi mu ñëwee fi mu teg bakkan fi la teg alal boo demee yi sharia ñëw nii dama koy sàmm bu ko kenn lal na ñëpp sori da fa fekk bakkan da nga fa fekk alal ni nga fay fekkee xel bu kenn naan sàngara lan pour lan xel la ñuy aar da fa fekk askan bu kenn dox ja tànk caaxaan ngir dañoo bëgg nu xam diw diw ko jur diw diw ko jur bu afi jaxso fi nan foofu boo demee foofa da nga fa fekk yaar yooyu ñu dendandoo fa sun borom it ñëwaat ci alquranul karim andiwaat bakkan ak alal yamale leen daraja ci fan ci saa yuñ jógee te yàlla rek tax leen a jóg mënu ñoo yam daraja te suñu saal alalam junne la ko tax jóg ni bakkanam jëme ci yàlla ni la alalam jëme ci yàlla te loolu wax suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom day wax ni wa man yuqaatil fi sabilillahi fa yuqtalaw yaglib fa sawfa nuutihi ajran azima ku dem ci xare nga faatu nga rayee ma fayla la fay mat nga ni kon bakkan ku ko jox yàlla yàlla fay la mu ñëw ci alal laa xayra fi kathirin min najweehumu illa man amara bi sadaqatin aw maaruf aw islahin bayna annas wa man yafal dalika ibtigaa mardatillahi fa sawfa nuutihi ajran azima kon sëñ fàllu maa ngi dangaa yëg ni diw de fan yi daa sant jaañ nga ne ma kaay ñu waxtaan mbirum diw waay fan yi de moom ma ne mbirum doy na waar ah, nga nga indi sutur ka indi sutur ñu jox ko yàlla nee na loolu ko def te yàlla tax fa sawfa nuutihi ajran azima te sëñ saaliw aw jiwam bu jógee ci jàkk boo ko dencut jàkk ji bu fa jógee dem ca tool ya ca yàlla la jëmaat kon loolu mooy am fi fi mu nuróole yaar yi ci biir jàkka boo leen doon topp masala boo indi ñam ñoom ñaar léegi nag euh, foofu nag dana am farq ndax nag koo xam ne nag mu dencoon jàkka ci jiw moom bu jiwee ba noppi loolu moom meneen mbir la <laughs> loolu du ma kii bu ko defee bi ma ci daanele ndax nag li ma wax rek si Saliou Nawi li ma ci daanele mooy xam-xam si Saliou moom bu nu waxee dëgg rek te yàlla tax xam-xam moom doy na war am na ci xel koom barab boo xam ni defe naa sëy lay lu fekk na ko jataay boo xam ni lam faroon waxtaane eh, waxtaanoo bokk na ca baat ya man na fekkiwuma ko bokk na ca baat ya mooy nangam àggaguma fa ak yéen fekk boobu mu ngi juñu jenn aaya alaykum wa anfusakum la yadurrukum man dalla ida tadaytum waaye ngi sëñ bi Euh, lam ca junju ak nañ ko nettalee ca nga xam ni ni mu demee ak alxuraan doy na war ndax fi nu aaya jooju day aaya ju xaw a am nu mel du maanaam ju xaw am nu mel ndax fi mu ni li alxuraan di yaatu yaatu jenn aaya jooju képp moo ci aaya joo xam ne dafa boole nekk naasix ak almansuux xam nga da naan gis aaya ñëw ne de di atte ba ñëw dindi atte ba moom képp nag la nga xam mooy aaya joo xam ne daa am lu fi jiitu di atte ba mu yàgg mu juga ñëw dindi lu jëkk la moom rek yaakaar naa mooy benn aaya bu boole yaar yooyu ndax la euh, yadurrukum man dalla iza htadi man loolu loolu jiitu lépp dañ ko folli ci iza htadaytum mm, waaye dafa mel ne am na daal yu sew yu ci ne yoo xam ni ko setantal euh, da xam yooyu bu ko defee li ma ci gën a daaneele mooy ba tey damay dellu si ni dafa xiyaas te xiyaas am na sax ñu àndul ci xiyaas ba ci ñenn ci saxaaba yi ànduñ ci xiyaas waaye defe naa téere usul yi am na ci boo xam ne boo ci demee leeral na ñenn ci saxaaba yi li tax ànduñ ci xiyaas waaye bu la leeree rek boo dellu siwaatee fii sa xel nangu xiyaas am na ku wax ni wama ru wama ruwi min dammihi faqad uni bihi alladi ala alfasadi ala alfasadi dafa naa ne ci xadd bu nii la ko daanee kon xias bin bañ mooy xiyaas boo xam ni dafa nekk muxaalif li an nusuus waaw xiyaas boo xam ne moom mënta ànd ak benn texte ñun la déedéet xiyaas bi nag boo ko andi woon texte quraan yi xadis nabi bi boo dem rek mu ànd moom kon maa ngi am foofu te eh, jox sama jëwriñ sëñ Cheikh. <laughs> <laughs> ba jërëjëf barkeel la. jërëjëf eh, jërëjëf eh, sëñ Cheikh day mel ne fii sëñ Salihu daaneele nga ñëw fii ate boobu sëñ Salihu indi ci wàllu jiw wi ci jàkka ji rek doy na sëkk ci ñu natt ci wàllu xam-xamam euh, dafa am émission bu may def ñuy waxtaan ci xam ak xereñu xam-xamu euh, ñoo ne dafa am dëkk bu mu nekk boo xam ne dafa am ku fa faatu di jigéen ñu war koo sang te ki ko mën a sang dafa gis baax ñu dem toog di ko xaar ñu jëli beneen sangkat ci beneen dëkk bu sori bi imam Ahmad ibnu Anbal akse na leen lu tee ñu jullee ndaw si ñu ne dañ ko sangagut mu ne lu tee ñu sang ko ñu ne kenn fi mën a sang te dafa gis baax ah mu ne lu tee mu sang ko ñu ne ko dafa gis baax mu ne waaye baax bi mu gis nekkut ci ay loxoom te loxoy sang ah, te loxo mooy sang kon boo dellusiwaatee ci Serigne Salihu bim na lee jàkka ma manes na caa denc aw jiw boo ko niróolee ak doomi aadama muy ab doxandeem ne ci ab dëkk te amut fanaan fu mu fanaan war na faa mën a fanaan rawatina nag jiwu woo xam ne bu demee ca tool yi bu desuwaatee bu jareeb simaat ci jàkka ji lay nekk ndax mën na faa dëkk ca duutu fa jóg kon bu fa jaaree di jàll war nañ ko faa mën a bàyyi loo xam ne fi jaar mën na fee dëkk te du fi jóg bu fa jaaree di jàll war nañ ko faa mën a bàyyi yaakaar naa loolu ci xereñ xereñte ci wàllu xam-xam ak dégg lim jàng eh, la sëñ Saliou kon sëñ Cheikh Diouf eh, yow dama lay bàyyi nga ñëw foofu ci wàllu xamuk sëriñ Saliou rek ndax dama bëgg ñu jël ko tom par tom bañ xam ne lépp sëriñ Saliou mënees na ko jëriñoo ci zahir ci ci ci ci koo xam ne dégg nga Serigne Saliou nekku fi rek doon kéemaan goo xam ne dafay jóge jóge fi ba faaw kon ñu ñëw ci wàllu xam xereñu xam ci Serigne Saliou alhamdulilahi rabbil alamin wa afdalu salaati wa taslimi ala allazi xidmatuhu taalimi ala kitaaba wa xaada li taalifi wal sayidina muhammad wal ali wa saxbihi fi lxaali wal maali mbokki jullit mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci wa sallam sàkku ci suñu boroom mu dool ñoo fayal doolu ñu wommatal lam ko tànnal moom Seexul Xaddim ak jàmbaar ji nga xam ne moom la ñuy waxtaane di suñu bunt ci moom di a Seex Saalihu Mbakke di ndokkeel julli ñëpp fu ñu mën a nekk rawatina taalibe murid yëpp fu ñu mën a nekk ci fàttali gi nga xam ne ñu ngi koy fàttaliku ci bis yi nga xam ne bis bi mu feeñe woon ci la nekk ndokkeel yeeg siyaar yeeg yooyu yëpp nag ñu ngi koy tàmbalee ci ki yàlla jiital muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko siyaare di ko ndokkeel di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te may ko wér te naal yim naal yëpp mu àggale ko te lépp ñu ànd ko moom waaye di ndokkeel sunu jëwriñ sunu sëriñ di borom barab bii di kilifa gi di Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saliou ñu koy ndokkeel ci bis boobu. di ci ndokkeel mbooleem ku mu bokkal Serigne Saliou tàmbale ko ci Cheikh Mahmoudul Moustapha soxna Waalo ak seen rakk yëpp ak seeti Serigne Saliou yëpp ak mbokki donge tër bi yëpp ak mbokki murid ak mbokki taalibe yëpp ak mbokki julli yëpp ñu ngi leen ci ndokkeel di ñaan rek kenn ku ne lu mu mën ci alxuraan ak ay xasiida ñu gën ko ko addi yàlla suñ fàllu jotaayu murit ñu ngi nuyu auditeurs yi ko daan topp yëpp ba tey nag ñu def ko ci ëtt boo xam ne moom murid yi miin nañ ko lool ëtt murid moom <laughs> buñ ko waxee ci kër Cheikh Saliou Mbacké euh, loolu lu wér-wér la ginnaaw bi nag tàmbalee ko ci sëriñ Saliou Baal ak seex sëriñ Cheikh Gueye ci seen waxtaan yu am solo yooyu ci xam-xamu sëriñ bi man fi ma ci tënk rek mooy ñu xam ne sëriñ bi xam-xam da cee sonn sart yi nga xam ne sàkk xam-xam da ko amoon yëpp da ko ko joxoon ndax xam nga ba demee ci tasudu subaan wala ma xaalixun niiraan sëñ bi day wax sart xam-xam daa am ay sart koy sàkkoo am ay teggin yoo xam ne itam ki sàkku xam-xam da koy sàmmonteel ngir résultat yi ngeen wax ne moom la ko xam-xamam bi jural mu mën a am résultat yi ñoom noonu yooyu yëpp Serigne Saliou da ko matale woon ndax boo xoolee am njàng alxuraanam dafa ànd ak tërbiya ànd ak xereñ ak coona ndax bi leen sëriñ bi joxee siñ am satu tam indi leen fii ci Touba mook si Abdou Lahad ak sëriñ Souhaïbou bu ñu ko xamee ñi jàng alxuraan dañ ko boole woon ak di tër bi yow di aj dem ca tool ya di buub di root mbooleem lu dong yi daan def tamit dañ ko daan def di ànd ak ñoom di tëdd di ànd ak ñoom di def lépp te loolu sëriñ bi moo ko digaloon suñu am satu moo tax mu daan wax ne yoon yu ma sëriñ bi jaarale woon rek laa leen bëgg jaarale bu njëkkee ci xelam ak man nitam loolu dana ci leer kon mu mel ne alxuraan jooju ci la xam-xam tàmbalee alxuraan Serigne Saliou jàng na ko ci diir bu gàtt xereñe ko ci diir bu gàtt ci nekkuk sëriñ Touba ndax moom wattu na alxuraan ci nekkuk sëriñ bi xañ ne ak bind kaamilam moom la doon xaaral ñoom sëriñ Soy bu ba ni sëñ bi làqoo ñu mu door a bind kaamil ñu jox ko moom Mamadou Moustapha waaye xam-xamam itam sàkku xam-xamam. ak sart yam doon yam doon jànkonteel bi suñ bi sëriñ bi nelawee ba suñ mudu sa yóbbu leen ci suñ muxtaar jeng goyaar ci tindoo di moom itam ak farloom ci sàkku xam-xam ak xér gum ci xiroon ak coono bum mu ci doon sonn loole it ay firnde yu bëree bëri firndeel na ko mu jóge fa dem mbaakool ndax foofa at la fa am sëriñ fa jóge fa dem mbaakool mbaakol nag fa la coono yi gën a fise ak jox gum jox xam-xam ay yitte ndax bi mu demee mbaakol dëkk yu bëree bëri ci mbaakol jàng na fa tàmbalee ko ci e, ci la dara maan ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo jege foofu Mewnu ak dëkk yooyu nga xam ne bu masaana ay nomades yi bu masaana xëy ba war suba teel ba war aw fasam dem di jàngi ngoon lay dëppaat te dana jaar dana jaar ci juróomi dëkk yoo xam ne kenn dëkk bu ne borom xam-xamam fa dana dem fexe ba kooku xamal ko dara mu jàll kon loolu ñi sàkku xam-xam ne ci yoon wi tàmbalee ko ci surtout xam-xamu diine ñu xam ne résultat yi mu am coono yooyu moo ko may ci saaxir loolu it day doon royukaay ci moom ndax léppam day royukaay kon da caa sonnoon attan ca ba mujj gi mu dem sax Aynu Maadi ci suñ Mor Saasum Jaxate nga xam ne booba sax dafa dafaa toxu ji moom suñu Abdourahmaan Jaxate dafa dem ñu defal ko fa ab néeg mu toxu fa ba xam lam bëgg fa lam lam fa a xam lépp mu xam ko ba mu ci jógee ba ñëw njaareem suñ mut dem moom itam noonu sëñ mu dem daana wax ne sëriñ Saliou dey ak ay tegginam ak sonn ci xam-xamam nekk na fi ba jóge fi nee na sama sama kër gi ay daal sax mosu ko fee sol kooku day wane rek yitte jum joxoon li mu doon wut ak ak kii gum ko joxoon xereñu xereñu xam-xamam nag li ci gën a yéeme mooy eh, bi sëñ bi nelawee wen set ci la bind kaamil léegi wen huit wen neuf trente trente et un dem leen am njàng xam-xam àgg na ci diir diir bu gàtt boobu ndax 31 ci la njëkk a tàmbali euh, bay ci ndukkumaan ndukkumaan jëng euh, fukki kilo fukki kilo gerte ñett yooyu mu bayoon te mu yéemoon loolu mu jox ko suñu Moustapha loolu 31 la ca la fa jóge ginnaaw bi ñëw njaareem ginnaaw bi ci la ci la ci la ci la neexaan ñëw nga xam ne kon diggante bu gàtt boobu ak jamono yooyee boo ko tëg suñu jamono ji nga xam ne mooy sàkku xam-xam dafa bari moyen yu yomb boobu ni mu jafee ak euh, sëñ Moxtaar Sow moomee nga xam ne moom itam fa la doon jàng xam-xam li ñu wax léegi ci xam-xamu mbay ne yooyu yëpp loolu booba waajtaay la woon woo xam ne ci liggéey bi nga xam ne moom la war a te lu ci nekk rek daa laaj xam-xam bu mat sëkk boobaa da daan sonn ci xam-xam ginnaaw bi yër yër yër nii rek mbuur gi daanaka am na fi ñaar fukki at yoo xam ne yëritéere rek moo doon liggéey moo tax mbuur moo tax daa mujj lu ne la xam sëñ Abdou Lahad da ko da daan ñeewant sëñ Abdou Lahad da ko wax sëñ bi téere yi ni ngi ci sonni metti na yërëm ko ci mu ne ko damaa xam ne jamono mën naa dem ba jëmmi jamono lu ne jamono de la ko laaj te nii ma ko tale boobaa mën naa am du ko tale kon nag naa naa waajal ba boobaa lu ma laaj rek fekk amoon naa waajtaayam moo waral gerte gi ngay wax bañ ko ko laajee fokk waajal na bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg leneen noonu leneen noonu fii mas na am na ñu fi mas a ñëw te mandargay xam-xamam ndax xam-xam mandarga yi koy feeñal mooy nga mën a wax nit ñi luñ dégg lu leen dugg ba noppi yomb nga xam ne ku am xam-xam dëgg te xereñe ko du jaagi ne ñi xam dong lay mën a waxal am na ñoo xam ne ñi xam rek lañ mën a waxal waaye ñi xamul seen wax daanaka bokkuñ ci wala dañ cey far waaye xam-xam ak xereñu xam-xam dëgg nag mooy wax gi ñi xamut dañuy jàpp na ñoom dong ngay waxal ñi xam jàpp na ñoom dool li loolu mooy tax sëñ bi di wax ci nax ju ne wa yastawi mubtadi un wa muntahi fii nafaihi wa xayruhu laa yantahi isqat xawaa kayfiyatal wusuuli li ahsanil axlaaqi wal mamuli kon sëñ saaliw loolu wane na màndargam xam am xam boo xoolee ay waxtaanam rek da daan wax lu gàtt lu nit mën a jariñoo lim daan wax ne doomu aadama yi bu ñuy wax say ayib dañ laa bëgg a weer waaye yàlla fu mu tuddi ayib nit da koo bëgg a jegal loolu nga xam ne day wax ji yomb joo xam ne ñëpp ko mën a xam dafa am sa masam ñëw fii boobu sax sëñ bi dañoo dem ginnaaw bi am ñu fi ñëw mu leen ko nettali sëñ bas xel ko maa ngi ko siyaar bu baax dégg naa mu ne sëñ bi nettali nag ko dafa am ñu fi ñëw na ko tasuuf daal lañ leen laaj lañ leen laaj ah, loolu de lu yaatoo yaatu la nga xam ne loolu moom xereñ dëgg dëgg dëgg moo tax nga mën koo tontu ci ab jotaay boo xam ne nii gën jaay yàgg ab yendu sax mënu koo mat moo leen tasawuf daal ni ma leen koy tënkale mooy li nga xam ne day defaral nit ki addunaam ba du fi bëgg a jóge defaral nit àllaaxiraam ba du bëgg yendu ci àdduna nga xam ne luñ luñ mën a wax rek loolu tënku te loolu ñëpp ko mën a jariñoo ñépp ko mën a xam dafa mas a am yelwaan mii ñuy coow ni dañ ko ko dañ ko ci mas a laaj am ku ñëw ne ko euh, daa mel ni waa bitim réew daal am na njëriñ yuñ bëgg réew mi yoo xam ne ay sart dañ ko ci teg yow mi da dégg naa nga ba tey na ko yooye mooy xam naa yelwaan gone yi ci mbedd yeeg yelwaan kenn yu demee noonu faaw ñu jéem ko jéem cee xalaat sëñ bi daan ne ko ah am na sax yeneen laaj jëm ko yu ko boolee loon waaw waaye bii moo ñu yitte sëñ bi ne ko loolu day xañ na yalwaan mii sax de moom ngi moom lañ jublu moo tax ñu laafaale ci yooya waaye yalwaan de moom dañ ko doon mën a bàyyi ndax alxuraan de daa digle sarax te diggee ci tuyaaba ju baree baree bari ñun jullit yi nag ñu ñu ñu dégg ndigalul yàlla te ñu bëgg tuyaaba moo tax la ñaar yooyu ci dese nag tax na moom duñ ko duñ ko ba mu ci ba jéng mu ko jéng itam jéng itam dadi nit ki buñ ko tegul ci yoon faaw dees na ko mas a tegi ci yoon ci ndawam wala ci magam nag mm-hmm. ki ñu teg ci yoon ci ndawam nag mm-hmm. ci loxo lañ koy jéng ci tànk ci tànk mm-hmm. waaye mag ñi ñi jéng nag fekk am naa mbañum rus nekk ci biir këram nekk dëkk bépp jox ko war ma ñu ñëw jël si ko takk ay loxoom di ko yóbbu loolu defoon ko ko ci ndaw moo gënoon a woyof bàyyi ba mu màgg ni du ko def daana ko kuñ ko def ci ndaw de da nga mucc ci def ci mag nga xam ne yooyu di ay mandarga yoo xam ne mm-hmm. xam-xamu diine dama ko jëlale xam-xamu diine mm-hmm. dana masal laa ci tëje mm-hmm. muy tiim tiim xam nga lu lu jafe-jafe la moom itam bari ay xam nga sëñ bi ay jamono yi mu ama ngante di tiim da fajar daf daan bu tiimee day julli ñaar rakkay fajar bu sëlma da ñu leqaam du tiimaat saf ci farata ji xam nga loolu li ñuy jàngale ci tiim mooy farat ci tënk yi nii mooy mën a yóbbaale naafila mhm. waaye naafila du mën a yóbbaale tiim mhm. léegi na loolu dañ ko koo mhm. sëñ bi gënoon a bëgg boo ko laajee sax day sawar dañ ko koo laaj mu daan ne bu ngeen demee ca euh, risaala ca saraaba xëtu juróom-ñaar fukk ak benn la xam ma ñaar danga nga gis foo xam ne day wax na loolu mën naa nekk daal di tari euh, kii ba waa nas ba daan la sax jam wax sax de boo ko bu ngeen ko xoolee laam nga daa daa xaw a far <laughs> nga xam ne loolu ko dem ci risaala da nga fekk na loolu. ku ko def yéen tiim ji ji farata ji jiital kii ba nopp sof ko ji loolu day wér. dëgg nga xam ne noonu la la la xereñam ndax moom da daan wax ne bi muy jàng xam-xam. Mm. waxuma la yax bi waaye saraay sax da ko daan mokkal ak sawaahid yi yëpp da ko mokk mokkaloon mm-hmm. moo tax loo wax mu mën laa wax bayit woo xam ne mm-hmm. walla loo wala wala ci waxi gay njëkk ya mm-hmm. yoo xam ne nii daanaka yow sax dang pour nga gis ko rek sa jafe-jafe lay doon dëgg la waaw loolu moo doonoon mooy wane loolu nga xam ne woon dëgg la sa kii soxaraaw mi am na sama bokk mu dong ko laaj mm. si ñu ne ko ñun de biñ koy biñ koy jàng dañ ko daan bind ci ci àlluwa <laughs> na ko ñun téere yëpp dama ko bind ci àlluwa de <laughs> ba togg na ma ci am xewar ndax tooy nga xam ne kon coono yi mu jox xam-xam ak ak ak attan gi mu ci jox mm-hmm. ak it nag sàkku barke gi mu doon def ci xam-xam mm-hmm. ndax jamono yi muy wut xam-xam nii ñi ko daan jàngal mm-hmm. ajuma jot dana fe alaba jot dana fexe ba wut juróomi dërëm jox la ko ci jamono yooyu loolu lépp di ay royukaay ak fàgguteef yoo xam ne war sa ko fàggoo ñu taxawandi macha allah jërëjëf euh, Serigne Cheikh Diouf euh, jërëjëf Serigne Salifou Baal jërëjëf itam Serigne Cheikh Gueye jërëjëf mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñoon di ñu seetaan ci seen émission bii di euh, kon xam naa ne bi ñu ubbi jataay bi wax nañ leen ne ñetti tomb la ñuy waxtaane benn bu njëkk bi mooy xam-xam Serigne Saliou ak xereñu xam-xamam ñu ñëwaat ak yéen ci tomb bi ñu leen digoon mu di xelum sëriñ wu ak man nitug sëriñ saaliwu man nitug sëriñ wu nag danaa ci jaare bu baax a baax lenn ci eh, bokki taalibe bi rawatina ku mel ne alaaji Ablaye Tage day waxtaane toujours diggam ak sëriñ saaliwu ci man nit gu sëriñ Saliou man nit ak ku mel ne euh, soxnaam di soxna Momi Kebe ku mel ne Samuel Sarr mi nga xam ne kenn la ci waa kër sëriñ Saliou te séddoo daaray Lagan ku mel ne Cheikh Amar ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom gën koo dolli ak wér gën ko fee yàggal delloo si ko ci liggéeyub sëriñ Touba bi waaye ak lenn ci njabootu sëriñ Touba gi nga xamante ne bii euh, mënatuñoo tàggoog sëriñ Saliou ca dara waralu ko lu weesu euh, manuk nituk sëriñ Saliou kon sëriñ Saliou Baal dama lay jox kàddu gi laaj la ci xelum sëriñ saaliwu ni mu ko yore woon àdduna yore ko ñu daara ji ak man gi nga xam ne sëñ saaliwu mën na ko doomu aadama ba ku ko min ko mën a bàyyi. mu mel ne dañu bëgg wax ci xelum sëriñ Saliou ak man nit mu mel ne xel ak man nit loolu dañuy lëkkaloo ñaare bu xel manee rek matee rek nit ki man nit ndax xel deesu ko jëmee lu dul li eh, jëmewuñ ko lu ci nit sunu borom bi mu bindee doomu aadama daf koo def mu doon koo xam ne. ci xel dafa bokk ci li ko ràññale ak leneen lu dul lu dul nit mu jox mala it xel mu toll ne la muy dunde moom mu jox nit it xel moo xam ne ci lay saytoo àdduna bi xel moomu nag da cee am loo xam ne tabian la muy nature la ci ki koy am waaye am ci loo xam ne nag mukk tasaba la muy dañ koy faggu mu mel ne nag ñaar yëpp mën ngaa tudde Seex Saalix ci wàllu xel abqar yi abaxira yi ñu xamoon mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw ëndaale xel mu dépensé euh, li xamoon mm, moom moom bokkoon na ci ñooñu euh, li koy firndeel mooy lenn lu ne xamoon na palaasam euh, looy wax ak moom it li làqu ci ginnaaw wax ji xam na ko waaw loolu dañuy siyaare Serigne Muxtaar Kebe da koy nettali lu bari ci sëriñ bi bi mu ñëwee di laaj benn donga luy sa bindub tey mu ne ko chéri luy sa bindub tey mu ne ko chéri mu ne ko xon kon xanaa démb da jàngoon min mu ne ko démb da jàngoon min nga xam ne kon mu boole muy min charri kon loolu li muy li li muy li muy wane mooy xel muy liggéey bu baax a baax a baax waaw xel muy liggéey bu baax a baax a baax noonu la meloon it ci mbooleem loo koy wax ndax wax nañ ci benn xibaar boo xam ne diggam ak kilifa gu mag ci réew mi moo ko ko doon wax ne ko dama laa bëggoon a jàppee nga doon sama conseil waaye daf ne ko boo ma ko defee day néewu ma la du la ci wax du duma la la ci wax loo xamut waaye nag dinaa la ci wax lu sa xel dajutoon kon loolu li muy tekki mooy eh, eh, xel mi eh, kawe na walif fiñ koy fiñ fiñ koy xaare hmm, naka noonu it Euh, comme am na kilifa googu it xamel ni fe fesaloon na ko sëriñ bi wàcc waaye xëy na bi mu ko jox ba jàppee ne sëñ bi da koo jubluwul lool lool lool sëriñ bi ne ko dangaa desee xam rek xamoo sa bopp xamoo ma ndax bu fekkoon am naa dara ñàkk jublu ci yow doo ko tal ba di ko wax nga xam ne léegi kon loolu yooyu yëpp day tekki mën a communiquer doomu aadama ci xaal ba mu toll bay wax nga xam ne communication bi mu lay jox moom moom moom ku baax ki bu bu waxee yow ba daaneel la làqu woon ca stratégie bi la ngeen doon waxtaanee lépp day mel ne dafa toogoon bokk ak yéen jotaay ba di ko di ko di ko dund. loolu loolu loolu xel koy xel koy liggéey loolu loolu suñu borom defaloon na ko bokk na ci li mu ko defaloon ci xelit muy fexe ba mën a saytu mën a dund ñoo xam ne lu mel ne ñi ñuy tudde ay politiciens nga xam ne am na ca ñooñ bu ñuy ñëw ca sëñ ba ak taal bi indiwu leen fa waaye dañu am seen intérêt bopp bu ñuy doxal. te la ëpp ci la ñuy bëggin mooy wëlbati sëñ bi ba faussé loo ko programme ndax toujours nitu nguur moom li muy gën a bari bu dajee ko nitu diine mooy fexe ba wëlbati ko mu jaar ci weneen yoon ci njuumte bu ñu xoolee fexe na it moom ba teel a galeel galeel loola lay firndeel xel ma mooy discours ba mu njëkk a def dànkaafu mbooleem ku jëm ca loola mooy lu dul lislaam aw ma cig defar waaye aw ma cig yàq nga xam ne kuy ñëwati rek ci boobu lay taay ci la lay baaree loolu it ba tey day firndeel ne euh, ku amoonum xel la te lii may wax it day dugalaale social bi day dugalaale man nit ndax man nit ñetti pàcc rek la mooy kenn ku nekk na nga ko jox wàccuwaay bu toll ne ba mu amee bu ñaareel bi mooy ki sàkkoo xettali ko na ko xettali ki sàkkoo mos nga mosal ko ndax ñett ñooñu ñoo fi nekk te Seex Saalix kenn ku ne jox na la wàccuwaay ba nga amee amul benn benn benn tarixa ci ci ñeenti turux yi nekk ci yi xam bokk ci si Sénégal lu dul ne boo demee sa ñoom la ñuy teemoy ca Cheikh Salih Mbacké da ngay defee ne ñoom rek la nekkaloon ñun donga yi it xam nañ ci dara li gën a xikma bi gën ci lu ñuy wax ilmu nafs mooy nit boo ko bëggee am euh, mu nekk xaasiyatun fexeel bay wéet ak moom fexeel ba di ko defal loo xam ne day mel ne mbakkar peggu te Seex Saaliw defe naa benn dongaam miimut loolu faaw rek dana am waaw te fex mu ngoog mu day nuru mbakkar peggu mu ngoog te donga bu ne muccoo ci loolu faaw dana am bis mu ak yow jox la aw ñam benn bi ci wéet ak yow wax ak yow ba jàpp ne fi mu ne donga bu ne bu jaar ci Serigne Saliou rek jàpp nga ne am nga ci Serigne Saliou lu ci kenn amut te loolu it ba tey man nit la waaye loolu it ba tey day duggaat ci am xel day duggaat ci am xel mën na nit kon ba noppi day duggaat ci xel bokk na ci liy firndeel it ba tey ne ku man nit la mooy bu dee bu bu ñëwaan ci daara yi ni muy ni muy ni muy seetloo donga yi ba am ci donga yoo xam ne léeg-léeg sax day ànd ak ñoom indaale leen indaale leen tuuba te den du ko waral lu dul suruuf yi suruuf yi benn xam ne am na lu manqué ci yow ci wàllu moral mu ñëw wéet ak yow ab diir dellowaat la yooyu yëpp loolu ku mel ne man dund naa loolu ba tàyyi defe naa fii fii ñu toog fanaan naa fi ba tàyyi nga xam ne loolu yooyu yooyu day fekk day day day tekki day tekki xam gu mu xam moralu doomu aadama. dëgg la tey doomu aadama mënu koom man te xamoo moralam. loolu moo sabab it ki jóg ngir njàqare fi mu ne li ma ci jeexale ci loolu. Mm. boo demee ci niti tubaab yi tey. Mm. xoolal Serigne Saliou ni mu occupé Sénégal tey nit ñi nekk ci université universitaire yi nga xam ne ci xalaat rek la ñuy dox. Mm-hmm. ak ak ak tubaab formation bi mu yor nga xam ne da lay fexe ba forme la ba yow mhm. sa bopp rek ngay yëg dëgg la nga xam ne yow dangay ngay jàpp ne sa jariñul bopp rek moo existé leen existé wul mhm. te tey Cheikh Saleh dund naa ak ñoom ci façon boo xam ne mhm. ku mu ci ñoom dem nga sa jë sa jëmm joojee fàtte nga ko ngir Cheikh Saleh amul werante wallaahi wallaahi loolu loo lool loolu xel moo koy liggéey bu ànd ak man nit dëgg la dëgg la ndax doomu aadama yàlla da koo bind ci teraanga ju toll ne boo ko mënul rek mu man boppam mu man boppam dëgg la boo ko yëgutil mu yëg boppam dëgg la yàlla da ko binde noonu macha allah boo xoolee na kon ndax ndax daf ndax boo demee ci borom xam-xam ilmu ijtimaa yi dañuy wax ne la al insaan ijtimaayun tabiiy mhm. doomu aadama mhm. soci maanaam social social nature mooy nature am mooy nature mhm. ñaar danga koy dimbali yëg ko jàppale ko mu di la gën a bëgg boo ko gantalee li nga man mhm. mu di la gën a sori dëgg la kon Cheikh Saliou man-manam bépp mhm. dafa boole dimbali ku kum njaboote mhm. ak kum njaboote wut ndax li may tudde kum njaboote wut mooy koo xamante ne duggut ci ron euh, keppaaram waaw mu nga leen keppaaram ñooña dimbal dëgg la tey lii fi li koy li ma ciy jeexale ci loolu lii firndeel ne day dimbali kum njaboote ak njaboote wut mooy na nga seetlu bu baax ne ab discours am buy jogaan ndax man damay am am naa am naa ay kilifa xëy na ba mu am na benn histoire bu yéeme ci moom boo xamante ne moo ko nettali woon bu yéeme lay doon nit ñoo xamante ne bokkuñu woon ci yoon wi mm-hmm. dama xawoon leen a jege mm-hmm. waaye ci bis la ñëw rek ci sama kër mm-hmm. ñëw ne dañuy siyaare si sëriñ bi waaye bi ñu ñëwee ci niñ jëflantee ak ni mu traité ak ñoom bañ ca jógee lañ ne ma sëñ bi daal ñun dañoo bëgg a jébbalu Eh. nga xamante ne kenn ki mooy taaw ca kër gam jëm mhm. moom bi mu jébbuloo bi mu yeggee mi ngi ko waxee dafa xam la ilaha illallah te moom dara dara dara yéemu ko lu dul mhm. bi mu ñëwee ni sëñ bi jëflanteeg moom dëgg ndax nee moom xaaru ko woon foofu dëgg la wallaahi kon nag nañ yëg ne amum xel mhm. te man nit mi ngi tàmbalee ci Cheikh Saalih macha allah xam féeteeg boroomam it dafa li bokk na ci man nit it li ñuy fokk yow nag dafa am ah waaw dëgg la am dëgg la parce que Cheikh Saliou it loolu da cee da cee nekk maanaam boo ñëwee fi nga koy xaar ci addina da ngay ñëw fekk ko ci ronam du la trompé nga ñëw fi nga koy xaar ci àllaaxira nga ñëw fekk ko ci jëlagu loola macha allah dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, jërëjëfati sëñ Saliou Baal waxoon nga ci wàllu xam-xam ak xereñu xam-xam ci sëriñ Saliou euh, waaye bii nag ñëw nga ci dëgg dëgg xelum sëriñ Saliou ak man nitam te feeñ na bu baax a baax ci li nga ni nga koy waxee am ko ay nattali euh, kilifa gu mag boo xam ne dafa ñëw fii nee na fekk sëñ Saliou ànd ak ay ay tubaab ñu seet si ko fi nee na bi mu ñëwee mu ne ko salaaw tubaab yooyu nga xam ne ñoo tëjoon école yi day dañ fee ñëw seeni kilifa yónni leen fi waaye bañ ñëwee nag dañ maa nëbbu néew ñu ma seeni kilifa leen fi yónni dañ wax rek ne dañ doon doxantu ci réewi Afrique yi ba jaar fi dégg ma di ma seet si waaye salaaw de ba waxtaan wa daataaka jeex ñoo ma waxal seen bopp ne dañ leen yónni ci laaju ma leen ko te leen dara waralu ko lu weesu biñ ñëwee melokaan wi ma fekk mbub mi da leen a trompé waaye nag ñëwee ñu tàmbalee waxtaan ak man ci beneen façon xam-xam boo xam ne moo jëm ci wàllu eh, tasawuf waaye nee na nit ku weex boo dee wax ak moom fi ngay xamee dëgg-dëgg na li ngay wax ñor na ko wala ñoru ko bi ko laajee sëriñ boobu mu ne ko eh, noo koy xamee mu ne ko benn ca xoolin wa wala ca nam toogee daal wax ne booy wax ak nit ku weex lu ko ñor bu la xoolee duutu xeef lu bari soo dee xool fa nga ko tegit bu dee cib sées day dem ba ca cat la mu toog ca nee soo àggee foofu nag nanga xam ne li ngay wax dugg na ko daa di wax nag waaye nag wax nag ak ku weex soo bañee mu sàppi ko fam ko ñoree dëgg dagg ko fa soo lëggee loo ko wax mu def ko loolu ci xel ak ci la feeñ kon sëñ Seex euh, dama yaakaar ne da ngay ñëwaat yow itam euh, foofu ci tomb boobu muy xelum sëriñ Saliou ak euh, man nitug sëriñ Saliou kon ci tomb bi sëñ Fallou la waxoon sëñ Saliou laa koy wax rek ca tomb bële mënoon naa jàll rek ngir solos li muy wax waaye kon ñu sof ci aslëf euh, te kàddu gi jàll kon bii dañoo wax xelam ak man nitam danaa baamu tuuti ci na ñu jéggal luñ wax ci moom cim xelam nañ xam ni suñ xel foofa la toll waaye waaye du buñ àggalee dañ naan kon xelam fii la toll mooy la déedéet demee du noonu ñu baal ma it ma tënk tuut tuuti rek ci xel ci boppam waaw ñu xel tuuti ngir solo gu gum am ndax xam-xam mi ñu génne léegi am na solo lool waaye bala nga ne xam-xam ne xel al moom loolu la jàngale dafa wax ni xel ku tedd la ngir xam-xam moo tedd ba àgg ci shahida allahu annahu la ilaha illa hu illa hu wal wa ulul bu yàlla ne seede naa nangam ñaareele malaayka yi ñaareele ñooñ xam-xam kon foofu day joxe day wone ni xam-xam ko am gëdd la gëddam googu li muy sori sori lépp nag day mel ni mi ngi ko tànkee ci xel ndax bu xel amutoon dooni xam-xam imam Ghazali moo ci teg ni euh, bu dul woon ak euh, jant dooni leer wa jaal na ayata nahaari mubsiratan xam nga ñun buñ gis nii kon jant la wala ci la gannaaw kàttanug yàlla kon eh, mbir mi am na solo waaye fi mu juddoo kooku ëppati na solo misaal na ko ci garab doomu màngo boo ko maccoon fii mu neex lool lu mu am am am solo si ci cawit garab ga ko meññ nag moom xam nga doomu màngo mu gis ko ci àddina ba noppi man koo jiiñ fenn fu mu bàyyi ko fudul màngo amul loolu mu mënta mi kon eh, foofu da ci wane eh, rëyayu xel mu teg ca ni sunu borom bi mu bindee xel dani ko yow de bind naa la ngay ko ma fonk waaye tegal ko ci yent yoo xam ni yent yi boo ci boo ci xool rek xam gëdd xel ndax dani ko bi ka axudu wa bi ka uti wa bi ka utibu wa bi ka uaqib yow xel bu may jël ci lay jële bu may joxe ci lay joxe bu may duma ci yow lay duma waaye bu may neexalee ci lay neexale léegi jël ci benn bi ka axudu ci yow lay jële jëlal bon léeg léegi foofu dangay seet jaamu yàlla gi gën a màgg muy julli boo ne yàlla ah, lii kat addiye mu ngoog mu ne lu mu doon nga ne ko julli mu bi muy ñëw lu ko gunge nga ni nangam nangam nangam mu ne ana xel nga ni ah ñëwut mu ni kon teewaat kon xel julli mi gën a rëy bu xel ñëwut mënta laa taqrabu salaata wa antum sukaare xam nga waa ji day julli naan qul yaa ayyuhal kaafiruuna a'budu maa ta'buduun maa wa antum aabiduuna maa a'bud xam nga kooku lii wax kenn xamul mu doon léegi yàlla nag ni kon gannaaw demee noonu kon gépp julli goo xam ne xel nekku ci moom moo kenn andil laa taqrabu salaata wa antum sukaara bi ci des xel yemut foofu ci julli fi mu toll nii mm, boo doon xool julli chart yi tax mu wér ak yi tax mu war foofa dem fekk fa xel boo nee surutu sixa surutu lujub foo dem fekk fa bala laa jullee war day fekk yaa ngi xel waaye balaa wérit fekk yaa ngi xel moo tax tey ji imaam bu doon julli ba mu yàgg mu def istixlaaf mu am ngànt def istixlaaf ci kenn mu àggale julli gi bu mbooloo mi seen kër xam ne ki doon mottali julli gi ab la wala bi yéefar la léegi baa mujj gis nga xel ci ñaari charte yëpp ñëw na fi euh, te julli mooy jaamu yàlla gën a màgg kon loolu ba tey mën naa màndargaal réewu xel bii des euh, Abu Saïd al xam mi ngi nettali saali mi ngi nettali yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam lu mu doon ci àddina am na lu koy téye sës ko ba du daanu ni waaye nee na jullit nag li koy téye sës ko ba daanu mooy xel jullit koy sës ko ba du mooy xel te loola alquran daa wax luy wone loola ndax am na ñu nekk sawara ñoo xam ne ban leen laaj dani law kunna nasmaa aw naqil ma kunna fi ashaabi sair bu nu amoon xel duñ fi ne kon ki gën a ñàkk xel ci àddina moo yéefar maanaam ak kéefar ci boom rek ñàkk maanaam kéefar li muy màndargaal ci nit waakoy mooy mooy mooy xel mu manqué xel mu manqué kon moo ko yóbbu ci yàlla ni eh, defal lii mu ni déedéet yàlla ni bàyyi lii mu ni déedéet ba far nag dugg foo xam ne ban ko fekkee loo fi bàyyi mu ni ñàkkum xel fi kon loolu lépp euh, màndargaal na réeyu xel bu defee nag bu doon ñëw ci sëñ saalihu cim xelam xam nga sëñ sëñ sëñ saalihu baal boo seetloo fi mu juróon junj ci lëwu xelam mu ngi ci xëy na bi mu weesoo tout tànk maanaam jëm na le waaye léegi nag kon ñu wàcc tuuti ci eh, lëw xel gi ci jamonoy tout tànk nuñ ko mën a tuddee ci sunu waxin nii nan nañ ko sefa waaye ala kulli xaal lu ci mën a xew sëñ Saliou moom boo ci amutoon benn màndarga ci rëyaayu xelam lu dul melokaanam wu rafet wi ko yàlla dénk bi mu amee maanaam sëñ Saliou ni mu mel melokaan bi rek doy na ci kii ku rëy xel la maanaam jikko ju rafet ji ragal yàlla gi maandu gi ba am ku sori lool tuubaa ko an fi l asri antal munaada sayidal kurama ni ko yow kat sang yëpp yaay seen sang ndegete zuhdan wa juudan wa xilman nahiyan shatata loolu am na ci waa jaamal ko wax lu mel noonu kon moom meloom rek mooy wane ni kii am xelam tuutu léegi nag boo dellusee nag ci euh, lëw xelam ci jamonoy tuut tànk dañ ci indi yaar yoo xam ne moo ko nettali boppam benn bi bu ko nettalee da nga ci xamee ni euh, sew-sew yi ne ci jëflanteeg sëñ bi xam gim mu ko doon xam te fekk tout tànk la ca ngay xame ni dëgg-dëgg am xelam law na am na bum nettali ni xam nga nekkoon na darul alimil xabir ay jamono gannaaw bi sëñ bi joxe ndigal nañ ko indil njaareem boobu tut tànk la sëñ bi daana def ay jamono léeg mu nañ ma ko andil mu ñëw mu seqe moom la muy seqe moom moo ko xam ay jamono nag sëñ bi fatu bi sëñ bi génnee nag nam gum ko nam bi mu ko séenee dëgg ay tànkam jëm si sëñ bi ñëw ba egg si sëñ bi nit ak lu mu bëgg nii rek sëñ bi xaw a mel ni ku ko gàllankoor ci mu agsi ci moom waaye foofu euh, lëw xel dafay feeñ ndax sëñ bi dafa mel ni xam na li tax sëñ bi xaw mel ni ko gàllankoor ba ak ci moom waaye te waxugu te maanaam bi ko sëñ bi nettali da koo jàppee noo xam ni da maanaam la xew da koo peege noo xam ni su la ko nettalee yow day mel da ngaa fekk jataay te loolu gone mënul lool nag gone kese waaw maanaam fekke mbir nettilee ko noo xam ni day mel ni yow mi ngi koy nett la nga ko ndax moom daa nettali ni booba xay na li tax mu demee noonu mooy suñ bi daa yorub kaamil ci bii ci des mu ciy for lu mel ni dugub te bañ na ma jóg ci dugub ci nga xam ne kon loolu yor na kaamil mënta boole kaamil bi ak di ko nuyu waaye beneen loxo ba it mel na ni ma ngi cey def loo xam ni day mel ni jàppee na ko muy farata joo xam ni romb ko fa keneen di ci jóge wala yu demee noonu day mel ni xam naa doy war fi moom